mbokk tay moy jotaay bu mujj ci dawra lu ñëk bi ci musabaqa bi nga xamne groupe bi tëral na ko fan yi musabaqa bi nak musuña dañ di leen di fatali li ko taxo a moy mooy bay sunu war rek ci alquran bi nga xamne borom tabaaraku taala indi lañu ko euh, tay moy nekk jotaay bu mujj bi <coughs> inshallah gannaaw lool nak dañ may ñetti fan diglu lajna bi ba xam yeen resultat lañu tek ci suñu loxo gannaaw loolu ñeenti nit ñi jël palmière dañ leen indi fii ñoom itamit ñu janoo gannaaw loolu ñaari nit ya génn ñoom tamit dañ jàkkarloo waat janoo dawra bu ñaareel bi nag laaja mi ngi commencé la ko dalee ja tabaraka lazi bi yadihil mulk ca suratul mulk tabaraka lay commencé laaj ba ci wal mursalat mën nañu laaj nag ci saar bu ne wala aaya bu ne kon su ko defee rek tey incha allah dañuy dalal imam mu ñëw dalal ganam di euh, Seydina Cheikh euh, Tidiane Darame euh, imam ñu ngi lay sant nag di jégaluwaat du ñu mës a dañ nag di la jéggalu ci coore yi ndax depuis musaabaqa bi ba léegi yendandoo fanaanoo waaye lépp rek liggéeyal alquran la ñu ngi lay sant di la gërëm barakallahu fiikum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 mbokki majmaa waqul jaal xaq wa zaaq al batil ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaara gannaaw ba ñu fayee nuyu al aq jibril di nuyu al imam cheikh mohammed Bousayri Sall ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ziyaara di rafetlu taxawaayam si majmaa bi ak jàngaleem kazalika noonu lay nuyu mboolem ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk si majmaa bi di wax ne incha allahu taala fas kee ne ñoo ànd ak ak yéen si dawra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 inna albatila kaana zahuqa ñu ngi leen di ziyaare bu baax a baax di ci jiital kilifa gi Serigne Aboubacar Diallo nga xam ne moo jiite mbooloo mi wante di ci teg euh, ñëpp rek ñëpp ñooñu nag ñu ci beral loxo euh, Cheikh Jibril ñu ngi koy ziyaare baax Cheikh Jibril ñu ngi lay ziyaare yow kay la ñu amul sa fay ndaxte boobu ba léegi yaa ngi ci wax dëgg yàlla euh, daanaka mën nga ni kenn fekku la ci yow yaa ci nekk daanaka da nga koo mujj jël ci Moustapha Diop waaye xëy xam naa ne Moustapha jóob xëy na Diop Diop geeg yooyu rek waaye uh, yéeneen lépp rek mooy lii nga def nii mu defoon ko uh, lépp rek uh, di di di aw yiw nga wuutu ko ci bal nga wuutu ci ñëpp rek nga wuutuñ ci ñun ñëpp loolu moom ñaanal la yàlla mu lay defal sutura ak teraanga lépp dafa ko képp koo xam ne yaa ngi ci biir waqul jaar xaq euh, waaw di di nuyu suñ mutasaabiq bi nga xam ne mooy Cheikh Diène Daraame Cheikh Diène ñu lay ziare bu baax ak di la nuyu di la remercier bu baax a baax ngeen baal ma dafa daggoon di la remercier di la di kontaan bu baax a baax a baax ci ñëw gi nga ñëw ànd ak ñun loolu nag tenir nañ ko xam nañ ko courage bi nga am rek wax dëgg yàlla loolu rek ab yëkkatiku la bu re re re rëy yal yàlla defal la ci sutura defal la ci ndamu adna ak àllaaxira kon nak ñu ñëw ci laaj bu ñëk insha allah laaj bu ñëk bi Cheikh Tidiane Dramé أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا لولو لولو اب نيانغي لا رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا نيتلو نيانغي مي نيانغي رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكه صفا لا يتكلمون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 aayaat yi ma wax léegi Cheikh Tidiane Dramé laa bëgg nga ñëwal ñu ci nga faram fàcceel ñu ko nga firiwaale luxaat yi nga xam ne moo nekk ci baat yi bi tawfiq incha allah bismillahi rahmaani rahim Cheikh Amam Boutéri comme ni nga ko waxee ci aayaat yi nga indi ñu si wàllu suratu naba comme ni nga ko waxee ci rabbi samawati wal ardi defe naa mooy comme ni ko imam Shaatibi radiyallahu anhu waxee ci téeram ba wa fi raf'i ba rabbu samawaati qabduhu zalulun wa fi rahmaani naamihi kammada ma des nañoo wax rabbi wala rabbu kazalika ci wàllu arrahmaani gi tamit bu fekkee dañ ne rabbi kon day dellu ci wax bi nga xam ne moo ko jiitu woon te mooy jazaan min rabbika ataan xisaaba kan la mu ne rabbi samawaati kooku mooy borom asamaani juróom-ñaar wala ardi mooy borom suuf وما بينهما أغلنك في ديغنتي أسمان الصوف الرحمن مودي الله خاينا ديغن يوسي والو إعرابي سي والو فصان كم جانجين سنبرم يالني لا يملكون دوني موم آه يعني لا يملكون دوني موم منه سي بسبة خطابا أكدو أو من كنو كو خمني مانام آه يوم القيامة دينا فجر كدو ديال برول دي واحد الخطاب بمعنى ديسكور بل بس لا من يوم يقوم يوم ما بس يوم يقوم بس لنا خمنا دانا تخو الروح الروح أمنا نينا مولي جبريل نحت جبريل دفا بوكسي تلني الروح أمنا الروح بنين ملايكة لبو بوكتا جبريل على كل حال دال بس لبو قام يقوم دانا تخو الروح جبريل سنو وحنا الروح كتي مومي جبريل wal malaikatu ak malaaka kon bu fekkee na ar ruux dafa nekk jibril wal malaikatu kon jibril duggaat ci kon day nekk atful aam ala al xaas euh, malaaka yi danañ taxaw ak jibril safan moom ñu la way sàppe dañuy taxaw def sàppe daldi di wër ndomba nit ñi suñ borom yàlla ne laa yatakallamuuna duñu wax إلا من ندل كان خامن أزينة ديغل نكو الله آه، له نيل كو الرحمن بوري يالا مي مبري يال ماندي نينا يوم الخيام بس لا بو خامن بو ملائكة يتخوي ورنا من نيت نا كين دو ام سن سنيو ا آه، ديل كادو ولا سنيو ديف اك شفاعة ندل سن بروم بوري يالا موكو جوخ ديغل تي سوكو جوخي ديغل بور كادو وقال مو وخ صوابا نجوب كوفي وخ لامي وخ لين لي دون مانام يعني صوابا kon fofu mo mënees nek la yatakallamuna fofu da fay delu si malaika yi bu fekkee dañoo xool si wàllu siyaxul kalam bi nee zalika dalika al yowmu boobule bis nag alxaqu mooy deug mooy bisub dëgg ba laa maxaalata fiha kon nak faman sha'a kep ku mu neex faman kep ka xamne sha'a neex nako sop nako way way ittakhazna jab ila na jàpp ilaa rabbihi jëm si boromam mi ak delu way kep ko xamne nak mom nak soom nako nak nag mu soob si yon bi nga xamne moy yonu siratal mustaqim na jàpp jëm suñ borom subhanahu wa taala mu def ko ko xamne moy marji marjian ci moom ma aban muy ak delluwaay ci mom te buñ ne ila rabbih ma aban mooy mu daal gëm yàlla bo la ko di jëf def ju baax te nga wax bi fofu dafa nek lu ñuy tuddé suñ borom yàlla dafa min dafa def ñuy tuddé tarxiib di tarxiib ak doom aadama bi di ka ñax ci mu ñëw ci mom ci walu jëf ju baax yeesa aju suñ borom bur yàlla inna naka ñun انذرناكم وارنن لين هناك من قال يعني انذرناكم داي دفا مخاطب اك وقريش يعني كفار قريش ولا بوكيب كوي درم موم مم داسي دغ انذرناكم خب آه، قب نن لين عذابا اك مبل خريبا مبل بو جيغي نك منون نعتفي عذابا نين دال يالا نين دال خب نن لين سي اك مبل بو خامني مبل بو جيغي لا خريب عند الله nee na yow ma mu yow ma bis ba nga xam ne yanduru dana xool almaru askan samay doomu aadama maa la nga xam ne xaddamat jiital na ko yadaahu ñaari loxam yaani mu namm si li nga xam ne maanaam doomu aadama bu nekk dana gis daal di xool lëm jiitaloon ci wàllu yiw ak ci wàllu ay lëm jëfoon lépp daal dina ko gis ndaxte wa wajadu ma amilu xaadira su ko defee nag wa yaqulu dana wax alkaafiru yéefér bi ne yaa laytani yaani yaa laytani aka yellante woon ñeel ma ma ne kuntu ma nekk turaban ci suuf ndaxte yaa góob nekkul xarfu nida ndaxte dañ ne yaa bu fekkee dafa méngi layta kooku wala mu méngi xabaza wala mu méngi rubba kooku dañ koy tuddee tanbih bi maanaam dana wax ne yaa yéegul ma yéegal ne layta ni aka yellantu woon kuntu ma nekk turaban di suuf ngir ñàkk yaakaar moom yéefér jërëjëf Cheikh Diagne Dramé ba tey ñëwaatal ci aayaat yi même aayaat yi لجي رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن لجي نيوال ما توجيه رب رب برفع برفع با رب رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن وما بينهما الرحمن نيوال ما ak tamit rabbi samawati wal ardi wa ma baynahuma arrahmanu rabbi samawati wal ardi wa ma baynahuma arrahmanu ñaar yooyu benn bu nekk man ma ko tawjihan tawjihal tawjihan naxwiyan nga indil ma léegi si wàllu tawjih bi dañ koy namm si wàllu firi ko beneen firi wala boog si wàllu waaw xam nga bu fekkente ni آه، رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن فوفو انكو تي وال رب اك رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن المهم سين آه، اي مواقع يا رب وخمنا بو فكي دانيو نيو سي بنتك بي مي بو فكي دانيو رحمن رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن فوفو bu ñu xoolee tool yi arab bi am na ay am am na ay wax yu si ñëw waaye mën naa si wax yi nga xam ne moo si gën a siiw ak yu gën a teew yu gën a teew sama xel incha allah bu si njëkk may bu fekkee dañ ne rabbu bi rafi kooku dañ naan mubtada la donte le am na ñuy wax ma ne sa nekk xabar li mubtada mahdub yaani huwa rabbu samawaati léegi nag am na ñu ne rabbu foofu dafay nekk mubtada arrahmaanu gu si kanamam nekk xabaram yaani rabbu samawaati nga xam ne de foofu day nekk istinafiya rabbu samawaati wal ard وما بينهما كوك نك مودي الرحمن سوكو دافي لا يملكون منه الخطاب كوك دافي نيك جمله استئنافيه بنن بي امنا ني ني رب السماوات من نيك مبتدا والرحمن نيك صفه يعني نعت في رب سوكو دافي الجمله في لا يملكون في محل رفع خبر لرب سوكو دافي خمنا ما نيو سي بالجر سي وابو فيك انا بالخفض يعني رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن rabbi gi moom day nekk yaani da dafay nekk badal ci min rabbika bi waaw même tamit su ko defee war rahmaan yi wala mu doon naat rek ci min ci rabbi bi waaj digluwaat sa audio bi fii bu fekkee dañoo jër bi njëkk bi rafa am ñaareel yaani rabbi samawati wal ardi wa ma baynahuma arrahmanu rabbi gi moom day nekk badal ci min rabbika bi su defee nag war rahmaanu bi nga xam ne moom bi nga xamne mom moom marfuu la mën na khabar xabar la mën na nekk mubtada kon mubtada su ko defé al jumla fi la yamlikuna bi khabaru xabaru jërëjëf Cheikh jan wa Cheikh jan kom dug nga ci bayt sat bi ya naru moon a wax ci qiraat mais kom dug nga ci bi sat bi ya ba wa fi rafi rab baa rabbi samawaati xafdahu ذلول وفي الرحمن نامه كملا قل لي نن جان رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن أك نن جان رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن أك نن جان رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لي إلي من يقول جان بليس بيت شاطبي وفي رحب رب السماوات حفظه ذلول وفي الرحمن نامه كملا كم نقول إمام شاطبي وخيرك وفي رحب يعني ba gi nga xam ne dafa rafaawa jar ko ku koy def mooy zalulun zalulun yaani ishaara ila alkufinu wa ibnu amir wa fi rahmani naamihi kamala ishaara ila asim wa ibnu amir kon su ko defee dañuy njëkk jël hamza ak kisaay tafadal اسمح li خليل wa خليل ان insha allah دقيقتين insha allah الله ak الكسائي يعني نيوم نياي jàng رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن الجر بالأول والرفع بالثاني يعني النون أما عاصم ابن عامر آه، ñoom ñaar رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن su ko defee nag alquraa yi nga xam ne ñoom la tuddul li mel ñoom ñooy rafaa ñaar yëpp yaani rabbu samawati wal ardi wa ma baynahuma arrahmanu kon bu ñu xoolee kon kuufiyun ak ibnu amir ñoom ñooy rafaa bu ñaareel bi daal di jar rabbu gi yaani rabbi samawati wal ardi wa ma baynahuma arrahmanu aasim عاصم ak ibnu amir ñoom ñaar lañuy jar ñaar yëpp rabbi samawati wal ardi wa ma baynahuma arrahmani qurra yi nga xam ne ñoom la tudd nag mooy ñu mel ni ki ñoom naafi ak ibnu kasir ñoom laa wax ne ñoom ñooy jàng ay hamza ñoom ñooy rafa ñaar yëpp rabbu samawati wal ardi wa ma baynahuma arrahman jërëjëf Cheikh Diane Darame waaw euh, rabbu samawati wal ardi rabbu samawati wal ardi lardi baatu lardi kooku warsh moom moo jagoo loolu nit yi des ñëpp al ard lañ wax la warsh moom mooy euh, euh, moom mooy moom mooy naqal noonu daani wal ardi wala azabana liman azabana liman azabuna limun warsh moo koy jànge wal ardi moom mooy waxe noonu nit des ñëpp الارض لن يرى لجي وما بينهما الرحمن لا يملكون منه لا يملكون منه منه لا يملك يعني منه تي بسم ديرك منه تي يلا لا لا لا ديرو لجي نك لما لا يملكون منه خطابا لا يملكون من يعني لا يملكون الخطاب من الله لجي القران دا فام لو خامني dañ koy dañ maanaam dañ koy taqdir dafay dafay ijaaz buñ ko maanaam loo xam buñ ko xamee dañ koy xadar ay laa yamlikuuna xawfan min allahi azza wa jalla laa yamlikuuna xawfan minhu xitaaban laa yamlikuuna minhu minhu minhu ta xawfan minhu xawfan foofu dañ ko fay dañ ko fay taqdir xawfan min allahi azza wa jalla xam nga moo ni laa yamlikuuna mënuñu minhu jóge ci yàlla amuñu amuñu wala mënuñu xam lool day dëng maanaam mënuñu amul amuñu lenn lu ñuy wax ngir ragal yàlla subhanahu wa taala yawma yaqumu ruuxu wal malaikatu safa yawma bi ñëwal ñëwal ma ci li'raab yawma bi yow yawma bi lan moo ko nasab lan moo nasab yawma bi loolu ñëwaat ci yawma yaqumu ruuxu nee nga ar ruux mooy jibril alayhi salaatu wasalaam نينا تمت يال يوم يوم يقوم الروح والملائكة من بعد عطف العام على الخاص ليجي لم موي دي لم موي فائدة عطف العام على الخاص لي غرض دي لول نيول ماشي لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن الرحمن بيجي تدو لم موي بين الرحمن أك يعني فني الرحمن أك ليجي صيغه الرحمن صيغه رحيم نيول انما كي معنى لي ديفرنس الرحمن الرحيم باتو صفه الرحمن صفه الرحيم ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه ما ارى في تمن يال دفلي فمن شاء اتخذ معناها يال دفا دفا مل دي دفا تخير كوم نيخ ما جابي اك اك اك ديل واي سي بوروم خنا كون لول دنجي ديغلي كوم نيخ تامين نانا جابي ما جابي سي كينين كول يالا xanaa kon léegi jàppee keneen ku dul yàlla ak delluwaay tamit dafay dafay dagan dafay àlla fa man sha allah kum neex léegi euh, fa man loolu ñëwal nga nga nga nga leeral fii inna anzarnaakum azaban qariban yawma yanzuru maru ma qaddama yada fii tamit yawma bi dafa nasab lan moo ko nasab mansubun ala maada ma qaddamat yadaahu wa yaqulu alkafiru ya laytani kuntu turaba léegi ñëwal ma ci bu ko defee ñëw ci beneen laaj incha allah dama déglu sa audio bi rek di ko dégluwaat def naa ma ñëw si wàllu li arab bi ndekkee ko mooy lu jëm si yawma gi yawma yaqumu ruux yawma gi lu ko nasab yaani dañ ko nasab si zarf zarf mutaalliqun bi laa yamlikuuna laa yamlikuuna même mun na aju si laa yatakallamuun waaye almashru may na aju si laa yamlikuuna laa yamlikuuna min xitaaba yawma yaqumu ruux yawma gi nekk zarf mutaalliqun bi alhamdulillah si laa yamlikuuna كم يوم موم دافاي نيك مضاف ابري جمله يقوم الروح في محل جر بمضاف اليه في يوم اما ما الفرق بين آه، الرحمن الرحيم لو بين خولي سي وزن بي وزن بي دنا ام فرق يعني كم فعالنا ومفعالنا وفعولكم ابن آه، مالي وخي فعالنا فعالنا ومفعالنا وفعول في كثرة عن فاعل بليل فيستحق ماله من عملي وفي فعيل خلذا وفعيل تبني خواليكم الرحمن دفير وزن فعلان fekkoon war nu taalaan foofu xaaliban li muy tegtale mooy kasra mooy yàlla exemple maanaam ci misaal daal mooy koo xam ne yërmandem gi dafa bëri fees dell ñëpp xëy amaana bu fekkee ne arrahim ci wasnu failun xaaliban li muy tegtale moom mooy subut mooy lu jëm ci wàllu faidatu masalan atful am ala alxaas akada loolu mën na am ci cadre tashrif يعني تشريف لجبريل آه تشريفا لجبريل وتعظيما له تدير malaika yi bu dé benen yoma ji moy yoma yanzurul maru bu batay ki la rek zarf la متعلق بعذاب انا انذرناكم عذابا قريبا لما كو سما كو فاتي وون بودي شاء اتخذ الى ربه مآبا يعني فمن شاء موي مانام فوفو يعني مانام كيب كو خامني يالا دا فا نام سي يو رك يعني مجاب ولا بو ila rabbihi jëm si boromam ma aban yaani mu doon ak marjax ci moom di delluwaayam maanaam képp koo xam ne yàlla dafa namm si moom yoonu yiwu namm si moom si comme nam nga waxee inna hadaynahu sabila imma shakiran wa imma kafura ki nga xam ne dafa namm si moom mu jaar si yoon bi nga xam ne dafay bokk si shakiran gi kooku la kooku foofu lañ dugal ne faman shaa maanaam faman shaa mooy ku mu soob moom yàlla mu nam ma jaar si yoon yow ittaxata mu jàpp ila rabbihi jëm si boromam ma aban waa jërëjëf euh, Cheikh Tidiane Dramé fa man chaa ittaxada ila rabbihi ma'aaban fa man chaa xam nga yàlla subhaanahu wa taala da maanaam machi a googu machi a taxiiri maanaam yàlla subhaanahu wa taala daf laa yombal ñaari yoon yëpp maanaam fa man chaa ittaxada ila rabbihi ma'aaban machi a googu maanaam ñun nit ki dafa dafa am xiyaar yàlla tànn loo na ko waaye nag donte tànn gi sax nit ki. maanaam yàlla force wu la ni la forcé wu la forcé machia nga xam ni comme ni ko jabriya di waxe nga xam ne boo naanee sàngara yàlla moo la forcé nga naan sàngara comme lu mel noonu déedéet léegi nag yàlla subhanahu wa taala daf ñuy wax foofu ni yombalal nañu ñaar yombalal nañu bu neexee nga dem jàppe sa borom ak delluwaay bu la neexee tamit yaa xam machia boobu machia kawniya la amma machia charia nag moom mooy ni yàlla subhanahu wa taala ma nga naan la jaamul yàlla jaaral ci yoon wi nga xam ni mooy yoon wa jëm àjjana mu ko machia charia la amma machia kawniya nag yàlla nee na wa wa ma tashauna illa an yasha allah wa ma tashaun illa an yasha allahu rabbul alamin ala kulli xaal léegi ñëwal ma ci irab yawma yanzuru almaru ma qaddamat yadaa ndaxte man li ma jaaxal fii mooy yanzuru nadara دفاي كعبي الى قم يالي افلا ينظرون الى الابل لان في ينظر تعديه الى الى امر معنى يالي هون يوم ينظر مرء الى ما قدم يده نختم ينظرون ينظر لين خمسة اللغه العربيه دفاي تعديه الى لجي في انا الى هذا امر الى كون نوكو الاعراب نانغوكو توجيها يوم ينظر مرء ما قدم يده نيولغا الاعراب الماء لا اي جرجت يا امام waaye yow ma yanduru maru bu fekkee si cadre li'rab bi sama dégg-dégg foofu yanduru ko fi'l mudaari ala al maru di faa'il ji maa gi nekk maf'ul di mawsul al jumla fi qaddama al yada moo nekk si la si maa gi bil ixtisaar comme li nga gën a soxla mooy yow ma yanduru maru mooy li ñu xam mooy yandu nazara wala yanduru dafay jël ko tey ila te fii dañ ne yow ma yanduru maru waaye xam nga foofu si fahmu bi nga xam ne moom laa ci am xaw ma xam nga yow ma yanzurul maru maa qaddamat yada yaani maa gi dafa nekk mawsul maa goog dafa nekk mawsul kon liñ fi taqdir mooy yaani yow ma yanzuru ila alladi qaddamat yadaahu nga kon loolu lañ fi taqdir si sama gis-gis si man su ko defoo si cadre naxu يوم ينظر إلى الذي قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت جرجف آه، شيخ جان درامي يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ينظر يتضمن بمعنى يرى معنى ينظر فوف دينيك بمعنى يرى يوم ينظر المرء فوف دينيك بمعنى yara bu fekkee dafay tadam bu fekkee dafay tadmiin bu fekk bu fekkee tadmiin maanaa yara kon bu boobaa mbir ñi day daal di day daal di yomb kon bu boobaa day nekk mafuul day nekk day taadil ci mafuul wante du taadil ci ilaa ndaxte yara mi ngi ne la yow maru yàlla nee na fa man yaamal misqaala yarahu wa man yaamal misqaala sharran yarahu gis nga yarahu kon léegi nag yanzuru foo gisee yanzuru mu mu mu am maful rek te amul ilaa benn ci ñaar yi lay doon yanzuru day nekk bi maana yara wala yanzuru bi maana yantaziru ndaxte am ndaxte yantaziru am na yàlla nee na fa hal yanzuruna illa misla ayyaami alladina xalaw min qablihim ak tamit fa hal yanzuruna illa sunnata al awwalin bi maana fa hal yantaziruun kon yanzuru leg leg day ñëw bi maana yantaziru wante yanzuru leg leg day ñëw bi maana yara ay bi nak bi maana yara bi maa laaj yawma yanzuru maru bi maanaa yawma yara al maru ma qaddamat yadahu ma bi wax nga ko ما موصول في محل نصب مفعول به ما قدم yadaahu wa yaqulu lkafiru yaa laytani kuntu turaba laaj naa la tamit yawma yanzuru maru maru لن foofu ndax jullit bi la wala yéeféer bi wala jullit ak yéeféer bi laaj naa foofu tontu woo ko xëy na koo fàtte yow ma yanduru al maru al maru foofu mooy al mu'min kooku mu'min bi la bi dalili wa yaqulu al kafir bi dalili wa yaqulu al kafir yaa laytani kuntu turaba mën nañ koo firee tamit yow ma yanduru al maru nit ki rek jinsul maru ñëpp yëpp maanaam ñëpp parce que kii boobu sax moo gën a مو جانا فيل موي الأظهر موي نيت كيب نيت كوني لا جيتون بوري دان دان كو فيك دا غيس بو بوبا نا يالا دادي سيتي ييفير بي ويقول الكافر لوتخ دا ييفير بام كيسه لام غيس ريتش لي دادي نيو مو دان ني يالا تاني كنت ترابا يالا نتي يالا مسل كون من نيو سي نياري لاج ان شاء الله xam naa bu dee comme kii bi maa ngi déglu sax dafa mel ni bi mooy waaye comme bii num almar utit naa ko dégg pour ñëw si tontu waaye comme wax nga woo kon waaw kon ñu ñëw ci ñaareelu laaj bi ci surat adaf ma maanaam ku xas bind intahaytu dootuma waxati dootuma ñëw ci benn laajat maanaam loo waxatee duñ ko du ma considéré ci intahaytu moom boo xasee bind xëy naa ci la maanaam lem naa boobu boobu boobu page lem naa ko jeex na ci feneen laa ñëw ci suuf abbas yàlla dafa ni wujuhun yawma idin musfira ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة الشيخ آه، جاني والمتي آيات إيما وخليجي نغا آه، فرم فاكي المقوم إن المجعي تأملا بالتوفيق إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة سيمبرم بوريال سبحانه وتعالى منجي نتلي bu bis koro bis yomal xiyaama bi nga xamne ne ya dañu set seet ci ñaari xaj moy ñi nga xamne ñam ñoo dugg ci faminhum minhum shaqiyun wa said ñu taxe ak ñu taxe di mu dal di melal ñi nga xamne ñam ñoo taxe ne ñam ñe wujuhi yawma idhim musfira daxikatum mustabshira ñi nga xamne ñoo taxe di nak mu dal di leen melal ci wujuhi yawma idin alayha ghabara tarhaquha qatar ulaika humul kafaratu hajara suñ borom bur yàlla subhanahu wa taala mu ngi wax naan wujuhu yi wujuhun ay xar karam goog yowma idin korog bis boobi di bis yowmal qiyaama musfiratun aji leer naa ñi la nee na wujuhun am na si ay xar am na si ay xar karam goog maanaam wujuhu kooku dafa nek muftara go xamne rek nek ra la donte le sax dañ ne muftara du nek nakira lolu dafa am loo xam daf ko euh daganalal dinañ ci ñëw inshallah xeyna xëy am na fi ay xar kanam yawma idin ko bis boobee musfiratun aji leer naññ la xar kanam yoo xam ne boo xoolee seen kanam ya day feeñ di fenk sax bay wuññeeku di leer naññ ci ak taar yaani musfiratun aji leer la nee na daaxikatun xar kanam yoo xam ne aji bég la daaxika ree foofu bi maana ree waaye nag mun nañ si nam rek koo xam ne dafa bég waaye nag mustabshira koo xam ne aji sàkko bég la yaani daxikatun aji ree la waaye nag mustabshira koo xam ne aji bég la si xewal góog gi nga xam ne moom la ko suñu borom yàlla jox xamuy xewal gu gu sax góog sa yoomal xiyam si aljana nee na wa wujuhun am na si xar kanam ay góog yowma idin yaani wa wujuhun ak ay xar kanam góog yowma idin ko do bis boobe alayha nekk na si kaw xar kanam yooyu xabara ak pënn buñu xolé su ko defee tamit amna ci yenn xar kanam yo xamne te muy ishare ñi nga xamne ñam ñoo taxé di buñu xolé xoolee seen xar kanam la dafa ak pënd mo nekk ci kaw yaani ak saxar nga xamne da naka do mëna xol xool seen kar seen xar kanam ye bu baax neena xar kanam yooyu nag tarhaq tarhaquha tarhaquha dana gar xar kanam yoyo lam mo kay gar mu ne khatara ak ñëkk yaani xar kanam ya dal la kay gar moy ak ñëkk yaani lëndëm gu ak ñuul lëndëm gu kiris ak ñëkk mooy muur xar kanamu ñi nga xam ne ñoom ñooy weddi yàlla ñu ne ko ñooñu ne mu ne ulaayka gaa yéen ak hum ñoom alkafaratu ñoom ñooy yéeféer ya waaye tamit alfajara ñoom ñooy kàccoor ya mu daal di boole foofu ñaari mbir mu namm ci yéeféer ñi ak daal euh, daanaka maanaam dafa mu mu daal di leen wasol ñaar ñom ay yéeféer lañ ñom ay kàccoor la donte la amna ci ñen ci si waa ilmu kalam al murjir ñu wax takal digënté al kafara huna ak al fajara wa da ala kulli hal dal al kafara al fajara fofu yàlla daf koy wasful ñi nga xamne ñom ñoom la ëllëg sen xar kanam ya di bo ba tamay wo wujuhu yawma idin alayha ghabra gabra tarxaqwa qatra ulaayka gaa yooyu hum ñoom al kafaratu ñom ñooy yéeféer ya al fajara ñoom ñooy kàcc jërëjëf Cheikh jandarane Euh, Cheikh Diagne euh, maanaam xam nga man dama seetlu bu ma bu ma bu ma bu ma laajee euh, sama laaj léeg-léeg du jël sax ñaari minutes te gis naa ni yow diira gi ngay wax ba ak lépp dana jël huit minutes bu ma gisee ni yow trois minutes lay doon trois minutes nangam nga xam ni kon dana dana benn cinq minutes boo xam ni wala quatre minutes boo xam ni toog nga ko maanaam buma laaje rek ñëwal ci saa wax kuma commencé wax buma laaje rek ñëwal ci kuma si wax ñu bari nak ñu bari nak dañ naan wax naa ba ci dégg ba day rag di dagat lolu mom xawna ma jaxal ala kulli hal وجوه yawma idin musfira daxikatun mustabshir nan الإعراب عندما عند الإعراب ma indi iraabal مسفرة ضاحكة مستبشرة idin wa wujuhun yawmaidin alayha gabara wa ak tamit indil ma li'raab wa wujuhun yawmaidin alayha gabara tarhaquha qatar ak tamit alkafaratu fajara bi nga koy bi nga koy bi nga koy tafsir waroon ngaa faram fàcce alkafara la mooy mufrad bi da nga ni ñoom ñooy alkafara ñoom ñooy yéeféere alfajar ñoom ñooy kàccoor yi déedéet da nga koy da nga koy da nga koy faram fàcc da nga naan الكفر جم كفر جمع كافر تاغو تاء الجماعة الكفرة جمع كافر مفرد بموي كافر آه، جمع موي كفر نكن فجر جمع فاجر مفرد بموي فاجر آه، جمع بكم قتل قاتل وهكذا فلولو لولو ورنا ورن كو على كل حال نيوم تي الاعراب وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قطرة يوم تي إعرابي لإعراب اللغة بالتفصيل إن شاء الله خمنا سانخ فوق ما سيدي آيسر أم كفق مدال دي أريد كي سمع آيسر للموت خل خل خمنا وعلى كل حال بفيك يكون شوال لإعراب وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة وجوه كوكو مبتدلة كم نوك في نمال وخان ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تترك عن جزية نامرة آه ينكر يعني وجوه تفنك مبترة بانوك نكرة كن إفو كن مؤم لو خمنا لن موكي نيتدى مساوي غال لو تخمو دون ممونا دون مبترة بابر دون آه نكرة نينان موي لم يو بور تنويع يعني تنويع ديغان léegi yawma izin bu su ko defee yawma góog dafay nekk zarf yawma gi day nekk zarf mansub mutaalliqun ci euh, musfira gi nga xam ne moom mooy ci euh, moom moo nekk ci kanamam léegi su ko defee yawma izin comme niñ ko xamee yawma tout le temps day doon loo xam ne mudaaf la waaw dafa bokk ci nga xam ne ñoom dañuy daafe fi ñu toll léegi izin yawma gi إذن idin gi moom dafa نيك لو xam عوض عن الجملة لا يعني التنوين دي gi dafa nekk tanwinul iwat يعني عوض عن الجملة آه ووجوه إذن مسفرة سكرة أنا مسفرة تنجي مما خبر وجوه وجوه إذن آه مسفرة نعم وجوه إذن نعم مسفرة ضاحكة أو مستبشرة يب من لين جاف نرى خبر وجوه وجوه يومئذ مسفرة دي خبر الأول ضاحكة دي خبر انترتي آه، بنيارل مستبصرة دي خبر نيتي نحن خبر من نالين وأخبروا باثنين أو بأكثر عن واحد كهم صراط شعراء ولا البوني لأن نعت ولكن بولي نعت بتي خبر كميل بين لا كون دعنا مسفرة الضاحكة المستبصرة نيتي يوم دنيو نيك خبر في آه، وجوه كان عليها غبرة ترهقها خطرة ووجوه نكو بواب دفن نك عاطفة ووجوه نكو نك مبتدر كم نمي وقال شيء وجوه نكو جاك جاءت يوم إذن ووجوه آه، آه، آه، نعم. يوم إذن عليها علي نعم وجوه يوم إذن عليها غبرة ترهقها خطرة لو سكون في يوم إذن كو ظرف سيدي أجوتي ترهقها لكن ووجوه يومئذ عليها غبرة يعني غبرة عليها عليها قومنا نك خبر مقدم آه، غبرة نك مبتدا مؤخر الجملة في عليها غبرة في محل رفع خبر ووجوه المعلم بتاع من الوحنة نمتر زيسا آه، وترهقها نعم جنا بوم يعني ترهقها قطرة ترهقها قطرة ترهقها نك آه، فعل مضارع مرفوع بالضمة ترهقها قطرة هاغوك نيك مفعول مفعول به مقدم أما وقطرة آه نمتلته نعم آه ترهقها قطرة ترهق ترهق واجي ترهق من فعل مضارع مرفوع بالضمة هذه نك مفعول به مقدم وفترة وخطرة كن نك فاعل ترهق من يرى بالي أولئك هم الكفرة الفجر أولئك هو ندون آه، مبتدا بتي دي آه، من ندون مبتدا هم الكفرة الفجر بتي هم كم ندون نيو دميرو فصل بتي هم ندون لي تودي مبتدا الثاني سوكو ديفه الكفرة دي خبرهم جي alfajaratu alkafratu kon di xabaruhum gi alfajaratu di xabaru di xabar bu ñaareel su ko defee ñu ne aljumla humul kafratul fajara fi mahalli rafin aydan xabaru ulaika bu fekkee dañoo def hum gi nekk mubtada ak taan yi bu fekkee dañoo ne hum damiru fasl faqat sans mi nekk mubtada kon alkafratul fajara day nekk xabar ci jërëjëf Cheikh Diane Dramé wujuhun yawma idin musfira daaikatu mustabshira comme ni nga ni tanwi mooy mooy musawwixu moom moo tax wujuh gi mën a nekk nakira wante euh, da ngay gis ni xam nga wax nga waxu ibn malik wala yajuuzu libtidaa bi nakira maa lam tufid ka inda zeydin namira waaye da ngay dégg mun la mun la wa hal fatan fiikum fa maa xillun lana wa rajulun min a dégg nga wa rajulun min alkiraami indana ورغبة في الخير خير قلت له ورجل من الكرام عندنا لطخ رجل من الكرام من الكرام موتخ نورف عندنا رغبة في الخير خير في الخير موتخ رغبة ورنك نكنون وجوه يومئذ يومئذ موتخ ما مصوغ بي وجوه يومئذ moom mooy تولت moom mooy moom mooy مم atteb même atteb ragbatun fi lxayri xayrun naka noonu rajul min alkiraami indana wujuhun yawma idin musfira manam yawma idin gi moo motax wujuhun gi wara wara ma nek wara ma nek nakira bu fekkonte ni dafa nek tanwi bo xamni amul zarf manam zarf tegu ci manam amul ab zarf xam nga yawma idin zarf la maanaam wujuhun yow ma idin wujuhun yow ma idin maanaam wujuhun kainun yow idin وجوه كائنة يومئذ مسفرة نكنون رغبة في الخير رغبة كائنة في الخير خير آه، رجل كائن من الكرام عندنا متخ ابن مالك بم وخيني لا ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد كعند زيد النمرة نقول إلى أي أمثلة وخلفة فيكم فما خل لنا ورجل من الكرام عندنا آه، آه، ورغبة في الخير خير وعمل بر يزين وليقص ما لم يقل على كل حال لو فوف تمت آه، ما لم تخفي تخفي او ملك هذا ملك يقل من نون لا ما شاء الله لكن وخا ترهقها ترهقها قطرا خما ترهقها الاعرام كوكو ترهقها فعل مضارع مرفوع وعلى رفعه ضم ظاهره في اخره الها مبني على السكون ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول ترهقها لجنة جملة, جملة ترهقها خمرة ووجوه يومئذ آه، عليها غبرة ترهقها قطرة لجي وجوه ترهقها قطرة لجنة ترهقها بسبب خمرة هذه ضمير ربو خمني دقوي ربطو دقوي ربطو في وجوه kon bu boobaa nag day nekk jum jumlatu jumlatu tarhaquha fi mahalli rafin sifa li wujuhun bu beneen bi ndaxte wa wujuhun yowma idin wa wujuhun yowma idin alayha gabara tarhaquha tarhaquha bi day nekk sifa ci ci wa wujuhun googu kon da nga ko fàtte indil mahal li'raab nga ko tarhaquha maanaam fi'l ak ak maf'ul bi qatara موي موي جمله ترهقها دا فا محل امنا محل محل رفع لا صفه وجوه مي رايت رجلا ياكل خبزا رايت رجلا ياكل خبزا ياكل خبزا جمله فعل مضارع في محل نصب صفة, صفة, صفة رجل أولئك هم الكفرة الفجرة هم الكفرة الفجرة هم بوحنقو بامير الفصل لدنا لدنا لدنا ما نك نك بامير الفصل لينك آه، ما نم جاني جسني كي بلاهم داي حصر داي حصر ما بامير الفصل ما يلا دقاي حصر أولئك هم الكفرة الفجرة يوم رجع يوم يوم يوم آه، الكفرة alfajar waaye damiru fasli la la gën a mën a nekk bu ko defee alkafaratu nekk euh, ndaxte ndaxte ndaxte lu tax damiru fasli yafsilu bayna ulaika wa ka wa kafara bu ko defee nag mu ñu bu noonu day bañ day bañ ndaxte hum gi bu ci nekkuloon mën naa am ñu yaakaar ni alkafaratu sifa la ci ulaika maanaam ulaika alkafara من نا نيك ني سيفالاي نا سي اولاي باغا اندي هوم جي نك ا مولير لا مولير ناني ني كون خبر لاي دون اولاي كمبتدا هم نيك ضمير فصل الكفرة نيك خبر الفجرة نيك من من نا خبر من نا خبر ثاني دا تي واخ واخ نكو سانك مانام خبر من نا من نا تعدد واخبروا بضرب واخبروا باثنين او باكثر عن واحد كهم سرات شعراء قلنا نيو تبين لاقي آه، سلام لاقي لاقي نبتل بي يالدا فوقتي سورة المطففين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون يا المكي ñetti axaat yooyu. yaa imaam dama doon déglu sa audio juróomi minute ba ngay taw di sama audio bi macha allah waaw xam naa kon ñu ñëw si si audio bi si si si laaj bi ñetteel bi waaw foofu suñ borom buur yàlla subhaanahu suñ borom buur yàlla subhaanahu wa taala gannaaw bam nekkalee li nga xam ne moom la doon yéefar ñi doon doon kaañoo di reetaan comme jullit yi tii si àddina gannaaw moo koy waxee salaay bi si gën a inna alladina ajramu kaanu min alladina amanu yadxakun wa ida marru bihim yataxaamusun moom jeex tàkk suñ borom ne fal yawma alladina amanu min alkuffari yadxakun ala alaraiki yanzurun hal thuwiba alkuffaru ma kaanu yafalun yàlla ne fal yawma tey mu namm si yawmal xiyaama alladina gaa ña nga xam ne amanu gëm nañ yàlla ñu dugg si daairatul iman neena bis bi nak bi yowmal qiyamata modi kay ñinga xamne ñom ñoo gëmon nak ñi nga xam ne ñoo gëm yàlla ñom ñoom nag yadxakuuna danañu ree yaani reetaanu kaañu ñan ñal ñuy re amanu min al kuffaari yani ñom dañuy re ñal la re min fal yawmal ladina amanu min al kuffaari yadhakun yani yadxakuuna min al kuffaar yaani reelu goo xam ne réewu tahakkum la daal réewu tahakkum comme affaire bi dafa jàllarbiku sa àddina yéeféer yi ñoom ñoo doon kaañoo euh, comme julli ñi yàlla na leen fali yow ma tey affaire bi day këpp si day këpp seen kaw yéen yéeféer yi fali yow ma tey alladina gaa xam ne amano gëm amano gëmoon nañ aw aw amano gëm nañ yéen xakuuna danañu reereewuk tahakkum minal kufaari ci yi nee na nag alal araik aw yanduruuna maanaam ne alal araik ñoom julli ñi ñoom danañ nekk seen kaw gàngunaay ya seen kaw gàngunaay ya yanzuruun aw yanzuruuna danañu mbir moom xool ñoom julliñ ña di xool yéefar ña te bu ñuy xool yéefar ña ñoom ñi ngi toog seen kaw gàngunaay ya sa biir aljana su ko defee nag hal fuwiba al kuffaaru maa kaanu yafaaluun maanaam <coughs> euh, mu mel ni ko dina hal fuwiba ndax fayeef na al kuffaaru ñi ما لغا خامني كانو نيكون ني يفعلونه دان كو ديف ناخ ييفل ني ناخ فايو نان لين ني ديف لا لا ديب تاي استفهام بي دا نيك استفهام غو خامني استفهام سخري لا استهزاء من يكون اتي نعم مومو سي توب لا في نعم مو نيك استفهام انكاري ولكن دا سي دا ني جوم سي بير استفهام بي لو جوم سي والو سخري ا سي والو استهزاء ناخ ييفل ني ناخ فايو نان لين لوم دون جوم سي جوم جوم جوم نان جوم في اتنا نعم يلا دو هذا قلبي بفرما كان يفعل waaw. jërëjëf Cheikh Diagne Darame fal yawma alladina amanu min alkuffar yadxaquun yàlla dafa ni fal yawma alladina fal yawma tey est-ce que àllaaxira dem wuñu àllaaxira léegi mu ni tey est-ce que àllaaxira ñëw na ba mu ni tey léegi luy ñëwal ñëwal leeralal ma fii yàlla dafa ni tey te àllaaxira ñëwagul mu ni tey loolu loolu nan la ko nan lay mën a nekk. yàlla dafa ne tey jii te àllaaxira ñëwagul lan mooy xikma bi ci loolu alal araiki yanduruun wax nga ko léegi hal suwiba alkuffaaru maa kaanu yafaluun ñëwal nga leeraabal ma jum aaya bi hal suwiba alkuffaaru maa kaanu yafaluun ci aaya bi lay laaj sax nee nga hal suwiba alkuffaaru istifhaam boole nga ci inkaar yi léegi inkaar yi suxriya la wax nga ko li suxriya mu jeex waaye boo ne mën naa nekk inkaar yi déedéet mënut a nekk inkaar yi parce que inkaar yi mooy dafa mel ne ñoom in ñoom yunkiruna an an al kuffar suwibu dafa mel ne noonu déedéet inkaar yi amul foofu hal suwiba al kuffaaru maa kaanu yafaluun loolu euh, suxriya la suxriya da da da dañuy dañuy saboté dañuy saboté yéeféeri te saboté te yéeféeri yeyoo nañu ñu saboté ñëwal ma daal ci hal suwiba al kuffaaru maa kaanu yafaaluun nga liiraabal ma ko nga in nga waxaale ma maa kaawun yafaalu maa bi lan mooy maxallam ci liraab te tamit indil ma maani maa ci alquran alkarim maa ay maaneem ci alquran alkarim maani maa ci alquran alkarim maa ci la limil gi la indi ko indil ma ko فالاعراب آه، بما الاعراب نملك الاعراب بالتفصيل ان شاء الله ففي آه، فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون كوك منا ذلك يعني آه، بمعنى ففي ففي هذا اليوم فاليوم الذين يعني ففي هذا اليوم يعني نيك لسي بدا بس من يوم القيامه من نيو wax ne ñewagut waaye nak fo lépp lo xamne day day ñëw rek koku dañ naan wa kullu ma huwa asin koku kharib lu melni rek exemple yàlla suñu borom subhanahu wa taala muy naan ata amrullahi fala tastajilu am nga fofu ata ñëw na amrullahi fala tastajilu am ñu ko fi rek yowmal xiyaama ata mu jëfandikoo foofu istimal fi'l maadi euh mën na ñëw comme exemple ñu na ma si comme fi'l mudari' wala boog ñu ne wa kullu ma huwa atin kharib wa amma bu fekkee ne hal tuwibal kufaru euh istifham للسخرية والاستهزاء نعم دفنا جعنا نغوح لجمس والو لعرب بديت لعرب ما هل توي بالكفار نغوح ما كانوا يفعلون هل جي دفير بمعنى آه، استفهام له هل توي بالكفار ما كانوا يفعلون تقول في إيه توي با توي با قوب دفين يكون فعل ماض مبني للمجهول فعل ماض مبني للمجهول في علامات في علامات مبني للمجهول نك موم دو ام فاعل نائب فاعل ام الكفار موم نائب فاعل ام آه، مرفوع علامة رفيع <coughs> بسم الله الرحمن الرحيم مرفوع وعلامة رفيع قدم متضاير في اخره هل ثويب الكفار ما شو بدات انا ما الحمد لله فهل ثويب الكفار ما كانوا يفعلون شو بدات انا آه، مم ماجي دا فنيك مثلا ما اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به لي يعني ثوب آه، هل ثوب الكفار ما كانوا واعتقد كيف كانوا لأن نكون كانوا لفين هيك فعل ماض ناقص آه، ترفع الاسم وتنسب الخبر زي دفين واو جوك ممي اسم مبني على السكون يفعلون كان مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون لأنه من أفعال الخمسة هو فعل الجملة في يفعلون في محل رفع خبر كان والجملة كانوا يفعلون أيضا لا محل له من أعراب في سلة ما سلة ما نقول هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون تفنى يعني maa ngi jégul man de enregistré naa léegi ni benn audio daanaka ma jege trois minutes ay comme dama juuman quoi dama son indi anwaaru waaw anwaaru waaw negati anwaaru ma nga wax wa xamna ko bu fekke ne comme anwaaru ma xeyna xëy na si alquran xëy na du ma takk yëpp waaye daal xam naa ci الموصول يعني بير معنى الذي كم هل ثوب الكفار ما كانوا ki أو لم ولئن ahwaahum ba'da ma ja'aka min al ilm كذلك سماء الاستفهامية بمنك وما تلك بيمينك يا موسى أك آه لما تقولون ما لا تفعلون عما يتساءلون أك آه ما التعجبية بمنك آه قتل الإنسان ما أكفره كذلك ما الشرطية بمنك وما تفعلوا من خير يعلمه الله أك وما تقدم من خير تجده آه، عند الله xam naa tamit lu ñuy tuddee ma euh, al ibhamiya li mel ni ki inna مثلا ما بعودة كذلك ما المصدرية لمنك آه ولهم عذاب شديد بما نسوا نعم بما نسوا يوم الحساب كذلك ما النافية بمنك آه وما ربك بظلام للعبيد أغلمين كتبت آه ممكن ذلك lu ngitte ma alkafiya ma alkafiya lu mel ni ki innama almuminuna ixwatun ma alkafiya suñ ko waxee ni ki inna bu fekkee ne dafay liggéey bu jokkee ma comme mo wastu ma bi dafal mubtali mel ni ko innama almuminuna ixwatun fa aslihu bayna axwaykum am nañ tuddee ma zaida ni ki fa bima rahmatin min allahi linta lahum fa bima rahmatin min allahi linta lahum waaw yaakaar naa daal yooyu daal fi xaw a takk de بثنا وعنا إشي فامي يعني كلام ما كتير من كيا موسى و اجو جف شفت جان درامي ما كافي يكن كوخ ما كاف ما كاف تكف ان عن العمل كن ما كافي ما خم كافي اكاف بكل كافية ما تكفي كافة تكف بمعنى ما كافة معنى تكف عن العمل آه، أمنا ما تعظيمية أمنا خمرا ما مصولية ليس دلكو تعظيمية وغير تعظيمية أمنا ما تعظيمية قم فغشيهم من اليم ما غشيهم مصولية موصولية وأنت تعظيمي غرضه التعظيم فغشيهم من اليم ما غشيهم أكتمد فغشاها ما غشا متشاعر دمام أه، معامل ما عشر إذا رمت عدها فحافظ على بيت سليم من الشعر لأنك موي ستفهم شرط الوصل أعجب لنكرها بكف ونفي زيد تعظيم مصدري كالقرآن دون, دون زائدة keroog maa ngi gis maa ngi dégg benn maa ngi gis benn waaye maa ngi li ma nee fa bi ma rahmatin min allah leen damaa juum ma ni euh, maa bi damaa juum ma ni istifhamiya euh, damaa juum booba sama làmmiñ xëy na moo ci wa ma ma ma zaida la bi dalili fa bi ma rahmatin tin bu fekkoon maa bi day liggéey kon du wax kon du wax rahmatin léegi آه، دوني زائدة مو مبين المنوى ما ما زائدة وليست آه، ما استفهامية زائدة في القرآن نم سمون تتجين تجين القرآن سيلة لنكيا ما نم لو خمني في غير القرآن زائدة لك القرآن سيلة لنكيا تدي نم بوني خمنا فبما بوني فبما رحمة من الله بني زائدة سيلة غير نكنونم عما قليل ليصبحن نادمين بوقت بني زائدة سيلة غير نكنونو مما خطيئاتهم اغرقوا خم ما ما يب في غير القران في القران نعم؟ زائده بدي تي القران ني فلا بدي تي القران ني ني آه، ني واخ فلا لغي ياكارنا آه، هل سوي بالكفار لما فاليوم الذين امنوا كون فاليوم نيم كو واخي دما لا لا فاليوم لا يالله تاي طيب. te yow ma xiyaama ñëwagul kon léegi noo may nan ngay nan ngay teqalee loolu même sax ata amrullahi bi nga wax pourtant ñëwagul loolu boo ci tontu bul wax ni comme ni nga tontoo du noonu ni ngay waxe mooy li taxaquqi wuqu li taxaquqi wuquihi maanaam yàlla subhanahu wa taala buy wax xabar bu ñëwagul day mel ne am na ñëw na ma pare moo tax alquran yàlla rek ku mën a wax fal yawma alladina amanu loolu dafa mel ne loolu am na ba pare jeex na

am gi muy am manam am gi muy am taxaqu gi mu taxaqu dafa agsi ci mu melni lolu tay la manam mu melni tay la wala mu melni am na ba pare lolu yàlla subhanahu wa taala mooy moy waxe non waye mu ni ko natale ni comme fi hadha al-yawm comme ni ko wax déedéet yàlla subhanahu wa taala lu ñëwagul bu ko nexe mu ko siratul maadi ni ñëw na ba pare bu ko waxe bu ko nexé mu indi ko ci fiatu fil hali fi zaman al madi wala fi zaman al hali dal ni tay bu ko nexé mu wax ko fi zaman al mustaq fi zaman al mustaqbal mom lu ko ci nexé wax ndax yàlla subhanahu wa taala mom mo yàlla kon ñëw ci laaju ñeenteel incha allah laaju ñeenteel bi Cheikh Tidiane Dramé ci sura al Ghaashiya yàlla dafa ni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 فوف ريك لايام لغي نيوال ما سي تفسير ايات يي افلا ينظرون الى الابل بابي غاي واخ الا من تولى وكفر دون ديغلو وات اوديو نتي ميدي بي غي ليرلي انواع ما بسم الله الرحمن الرحيم افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت وا سيني بروم سبحانه وتعالى فوف مونغي واخ di wax ak di joxe ay am si la waaye nag boole koog mu jox leen ko isha pour tafakkur wa tada tafakkurin wa tadabburin ngir ñi nga xam ne ñoom ñoo bëgg a wéet di dekki comme koo xam ne faatu na gëm ne dekki dootul amati mu bëgg leen a indil dalil bi wane ki nga xam ne moo mën lii fekk ki nga xam ne moo moo mën a bind lii kazalika kooku lottuwul mu mën a dekkil li nga xam ne bind woon na ki nga xamne mom moy sami abi tamay suñu borom subhanahu wa taala ko ñi nga xamne ñam ñoo weddi yàlla ci weddi dekk suñu borom bur yàlla subhanahu wa taala ñam lay wax ni afala yanzuruna afala yanzuruna afala yanzuruna moy ma dax duñu xol ñom nit ñu xoluk tafakkur nak ak tadabbur ila al-ibli jëm ci gëlëm kayfa khuliqat moy nak la bindeef ko nak la خلقت يعني كيف خلقت مثلا آه، بالليفكو موم جيلم ما نخ جاي نيغا خامي نيوم نيو ويدي الله دي ويدي ديك ما نخ نيوم دي نيو خول جيلم خولو تفكر نا اك اك آه، تدبر نك لاكو سيني بروم بور يالله سبحانه وتعالى بند بند غو ييميغو ها نختي جيلم بند غو آه، بند غو سيني بروم بور يالله سبحانه وتعالى دي نيكو دي دي تك قدره الله سبحانه وتعالى ما نخ جاي دي نيو خول بند بو bind bu yéemu gi yàlla bind dilam nga xam ne foofu lu tax maanaam yàlla suñ borom indi al ibda si gis-gis bu ma si am xam nga tey dafa am yenn dàbba yi nga xam ne ñoom nit lu ci mën a jëriñoo mooy wàllu lekk kese lu mel ni koy xar ak bëy yi mel ni ki noonu am boo xam ne sa wàllu sooba kese am yoo xam ne war rek nit nga si mën a def lu mel ni ki mbaam ak yi mel ni ki noonu wal wal xayla wal bixaar wal xamila li tarkabuha hakaza bu dina am maa nag lu mel ni ki gëlëm mënees na boo soxlaa soobu mënees na si lekk bu dee si yàpp mënees na ko jëfandikoo si wàllu war si wàllu yenn bagage maanaam lépp loo xam ne doomu aadama da koo soxlawoo si yenn si yeneen euh, daaba yi moo xam pour ñu sëf ay bagage kese wala pour lekk wala pour jëm si wàllu meew ba yooyu yëpp gëlëm da koo mën seen <sighs> waaw tamit moom euh, moom kazalika gëlëm ay manafix ay euh, njëriñ yu bëri yi nga xam ne maanaam mën nañu wax ne duñ ko fekk sa beneen dàbb mbudul moom wa ila samaa'i jëm na si asamaan kayfa rufiat mooy naka la yëkkateef ko kazalika ma ndax gaa yi duñ xool xoolub tadabbur asamaan su yéene gi naka suñ borom yàlla yëkkatee bi gayri amadin tarawnaha kazalika wa ila ak jëm si gëlëm yi astafurlah daj ya kon kayfa nusibat mooy naka la sampeet ko si kaw suuf te nag yëngalul suuf sa deful ak rëng بدي yëngal suuf sa wa ila al ardi ba tey kazalika moom ndax gars yi ñoom li ñu xoole wa ila al ardi jëm si suuf sa kayfa suutihat mooy naka la tàllaleef ko nga xam ne suuf sa suñ borom buur yàlla subhanahu wa taala da ko tàllal mu doon loo xam ne doomu aadama yi maanaam mbindeef yi dañ ci dox di ci bay yeesa aju yu mel ni que noonu defenaa ay buñ ko naam fadhakkir innama anta mudhakkir lasta musaffir illa man tawakka nee na suñ borom bur yàlla subhanahu wa taala indi fi'l amar xitaab ko jëmee ko si yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne ko fadhakkir yaani na nga waar yow yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam na nga waar nit ñi fadhakkir na nga waar fàttali innama anta خمل نك يو يرنتي بي صلى الله عليه وسلم مذكر أدوارنا يعني إنما أنت خمل نك يو يرنتي بي صلى الله عليه وسلم مذكر أدوارنا يا يعني خمد يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك نقل أمي مشيون يعني التبليغ وأنك منك أنك لست عليهم بمسيطر معنى لست عليهم أو لست بمسيطر عليهم معنى يرنتي بي صلى الله عليه وسلم لست ديت يوم bi mu soytirin ngay aji not di forcer nit ñi pour ñu gëm alayhim maanaam lasta lasta dir yow yonent bi moom sallallahu alayhi bi mu soytirin ngay aji forcer alayhim si kaw alayhim si nit ñi maanaam yow yonent sallallahu nekkoo koo xam ne maanaam digaluñ la pour nga forcer leen nga xam ne ñoom dañoo war a gëm dugg si diine ji force fala force doo demal comme niñ ko waxee noonu manam yow la nga def nga kii la nga sant moy nga def tabligh yu melni ni yaay wa rasul balli ma unzira ilayka min rabbik wa innaka la tahdi manam hidayatu l irshad wa dalal la hidayatu tawhid hidayatu tawfiq inda allah subhanahu wa taala manam yow yeneen satam la tadid yow bi musaytir ngi aji nag di forcé pour ñu dug ñu gëm dug ci l'islam alayhi anam bi war yéefar yi dal waaye nak mu tek ne illa man ludul ka nga xamne tawalla deduna wa kafara ca weddi ah waaye nag waa ja nga xam ne nag dafa dëddu say waare ak say fàttaliku mu daal di weddi yàlla fa yuazibuhu llahu l adab al akbar kon foofu nga wax ñu yem illa man tawalla ba kafar kon xam naa kon ñu daal di taxaw foofu rek fii wàllu firi jërëjëf Cheikh Tidiane Dramé yàlla dafa ni afala yanzuruna ila al ibli kayfa xuliqat afala yanzuruna istifham boobu ban istifham la afala yanzuruna istifham boobu ban istifham la ila al ibli xuliqat wax nga lu tax yàlla tànn ibil ci ibil moo ci gën a bari njariñ kooku wax ngo ko nga xam dañ koy war di ko rat rat di ko lekk ak di ci di di di ci kawaram loolu moom wax nga ko وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر مسيطر أما أي قراءة يشنك أما آه نيجان بمسيطر nga xam day nekk diggante sad ak zaay bii mu bii mu xalaf ak euh, Hicham noo ñoo ko jàng lasta bi mu bi mu zaytir bi mu zaytir xalaf ak xalaat laay wax ngeen baal ma euh, xalaf ak xalaat mooy euh, mooy Hamza waaye comme dafa ni dafa am xilaaf ci xalaat موتاخ مو اندي خلف اك خلات مانام حمزه لا خلف خلات خم حمزه رك واي خلف خلات دافا ام ووتي سي فوفو دافا ام اي روايام اي رواتم دنجي ووتي لست عليهم بمسيطر ام ني جان لست عليهم بمسيطر لست عليهم بمسيطر هشام مو موكو جان لست عليهم بمسيطر ñi ci des ñëpp nag di jàng lasta alayhim bi musaytir bi asfar waaye benn maana bi la illa man tawalla ba lasta alayhim bi musaytirin illa man tawalla wa kafara illa googu ban façon istithna la illa man tawalla wa kafar ban façon istithna la lasta alayhim bi musaytir illa man tawalla wa kafar kon léegi koo xam ni maanaam nekkoo ku leen di forcer di leen jaay doole di teg ci ñoom euh, maanaam ak force pour ñu pour ñu gëm léegi nekkoo lu dul ka nga xam ni dafa dëddu maanaam euh, weddi istisna boobu ban façon istisna la maa ngi la ci déglu incha allah. maa ngi ko fàtte leeral sax ci chat yi هناك لو هي بيضا المسيط ريش من ضاع والخلف قل لا في شاتي بيض نشات الأغير مخواتي و بدي أفرا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت كوكو استثم... آه، استفهام التقريري لا. نعم استفهام التقريري wa defena bu fekke ne comme lu jëm ci walu istisna bi xam nga fofu istisna bi bu dé ci cadre li arab xam nga fofu dañ la fa zakir inma anta muzakkir Eh, yaakaar naa mun nañ fa mun naa fa génne ñaari wax ci wàllu li aar ci wàllu ñaari wax daal ba jàpp ñett insha allah taala فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر إلا جو دفنك أداة استثناء إلا من تولى وكفر فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفى دا فا ام ني استثناء غوك دا فاي نيك استثناء ما مثلا متصل كي متصل موي مستثنى بي اك مستثنى من ما نيو بوك ميم جنس بام نكو فا ذكر انما انت مذكر بوبي مانام بوب ميم كو دوب يالا صاح دا فا بوك سي كو كوكو دنج كو ورا وار ما خامني كون بو وار بو فكي ني داي دوجو سي فا ذكر انما المذكر داي نيك استثناء متصل waaye nag am ñu ko def illaa gi dafay nekk maanaam adaatul istisna ci istisna munqatia mooy bu fekkee ne kon dañoo feqale diggante fa zakir innama zakir ñoo bés xam ne illaa man tawallaa wa kafar te kon dafa mel ni kon illaa man tawallaa wa kafar kooku du bokk ci ñi nga xam ne mooy fa zakir innama anta nu mu tuddati innama anta muzakkir boobaa nag am ñu ko def istisna munqatia même illaa gi tamit am ñu illaa gi tamit mun na nekk maanaa laakin laakin goo xam ne dañ koy ilga maanaam لكن bi يعني, آه، يعني آه، فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر الا من تولى يعني لكن من تولى وكفر قوم فيعذبه الله العذاب الاكبر ودفنا لون شيء jërëjëf شخص جان فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر لجي إلا استثناء بابو أمني متصل بسكن تاني دفوير كتا فذكر أما بفكر دفوير كتا إلا من تولى آه، لست عليهم بمسيطر دينك منقطع لجنك أه توخونا بو فك ني واخ ني واخ واي نك استثناء منقطع مو غنا سيو تي مفسرون استثناء منقطع مو غنا سيو تي مو فسر طبري رك مو اندي مو اندي نياري احتمال طبري مو اندي مو اندي مننا ام نياري وجه استثناء متصل اك منقطع لي نك واخغا واخغا نياري ييب امول بروبليم مانام اندي غا بوانتي bu fekkente ni istis ñi wax ni istisna munqati la bu fekkee istisna munqati la ban maanaa lay joxe bu fekkee istisna munqati la ban maanaa lay joxe ñëwal gaaw ci gaaw ci gaawal tontu ma ñu ñëw ci laaj juróomeel bi insha allah ak tamit lan mooy farq bayne istisna munqati ak istisna muttasil lan mooy lan mooy seen seen farq ñoom ñaar ok yaa imam فبودي الفرق بين مستوى متصل ومستوى منقطع كوكو معنا مستوى متصل موي معنا مستثنى دي المستثنى منه نيم نيو بوكو جينس مثلا من قام القوم الا زيدا لان زيدا جنس من القوم كان هذا يسمى آه، استثناء متصل اما استثناء منقطع مي مستثنى بالمستثنى منه بيم نيو بوكو كوم اكزامبل كوم يني جاء القوم إلا حمارا لأن الحمار ليس من جنس القوم bu fekkee ne comme ni nga wax si bu fekkee dafa nekk islam munfatih waaw maanaam bu fekkee xam nga bu fekkee dafa islam munfatih day aju si tazakir bu baa ñu ñu ñu ñu si dugg amma bu fekkee dafa nekk islam munfatih waa dinañ tazakir إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى بوانك دي أجي لست عليهم بمسيطر إلا من تولى بوانك إلا إلا من تولى day aju ci lasta alayhim bi musaytir bu dee istisna muntasil nak day aju ci fa zakkir bu dee istisna munqata ci lasta alayhim bi musaytir illa man tawalla wa jërëjëf Cheikh Tidiane istisna munqati dama la laaj ne la ban maana lay joxe xam nga wax nga ma istisna muttasil koku wax nga ko manam an yakuna al mustasna juz'an min al mustasna minhu maanaam mustasna bi bokk ci mustasna minhu istisna mun muttasil lay doon wax indi nga misaal bi leer na jaa al qawmu illa zaydan am bu fekkente ni musta musta istisna istisna munqati la comme nga ni jaa al qawmu illa ximaaran an laa yakuna al mustasna juz'an min al mustasna minhu loolu moo indi fa sajadu illa iblis fa sajadu illa iblis loolu may wan ni iblis bokkul ci malaaka yi ndax foofu istisna munqati la waaye dama ne istisna munqati ban maanaa lay joxe foofu indi foofu tontuwuma fi al istisna istisna munqati maanaam bi muy jox mooy bi maanaa illa illa laakin day wax bi maanaa laakin maanaam lasta alayhim bi musaytirin إلا من تولى وكفر بمعنى لكن من تولى وكفر فيعذبه الله عذاب الأكبر كون فوفيك اسنا منقطع مباشرة وحل لا بمعنى لكن ما جهل في القرآن قال نينا شي موسى أه موسى بكو يالا بخيريكو وألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون الا من ظلم اسكا لولو مرسلو دا في ام ньо خامي ظلم مرسلو اسكا دا في ام ньо ظلمو ديدت الا من ظلم مستحيل منك اسنا متصل منقطع لي دون فوف بمعنى ولكن لا يخاف لدي المرسل ولكن من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فاني غفور رحمه المرسل دون ظالم نك Ibrahima alayhi salaatu wa salaam bi muy wax ak aw nitam di ni di di leen wax naan leen fa innahum aduwwun lii qaala afa raaytum ma kuntum tacbuduun antum wa aabaa'ukum alaqdamuun fa innahum aduwwun lii illa rabb alaalamiin est ce que foofu da nga kan moo ñëwee wax foofu istisna muttasil abadan mustahilun akbar muhaal ملتنك معنام يوم سمعي نون لين لدل بام فإنهم عدو لي إلا رب العالمين كلي رب العالمين ملتنك شاي باب ملتبوك شاي باب أي مام ملتنك أي أي أي أي, أي. فإن معنام أفرأيتم ما كنتم تعلمون أنتم وآباؤكم آباؤهم الأقدمون رب العالمين ملتنك كلي إلا رب العالمين ولكن رب العالمين فإنه آه، إلا رب العالمين الذي خلقني فإنه يهديني كوكو رب فوق رفينك آه، منصوب على الاستثناء على كل حال كن بمدير سواكيرك موي إلا بوخمني استثناء منقطع لا فوق فك لينك بمعنى لكن كن نيو تي نياري تي آه، جرومي لاج ان شاء الله لا جروميل بي السؤال الاخير ا موي جروميل يال دافاني في سوره الفجر كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحابون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جمّا kallaa idaa dukkatil ardu dakkan dakkaa ñëwal ma ci aayaat yi bu ko defee nga nga nga nga leeralaale awjuhal qiraa ci wala taxaabbuun ak wala taxubbuun ku ne xam na ni alkuufiyuun te mooy Hamza alkisaa'i aafi aafin ñoom ñooy jàng wala taxaabuun ñi ci des ñëpp naafi ibnu kasir abu amr ibnu amir ñoom ñooy jàng wala taxubbuun comme ni ko Shaatibi waxe taxubbuuna fatxu dammi bil maddi summi laa summi laa ñoom ñooy jàng loolu léegi xam nga wala taxubbuun ak wala taxaabuun am na différence ci prix mi ñëwaaleel nga leeralaale ko booy tafsir loolu nga leeralaal nga leeralaale ko wa taqulun wa taquluna turaasa akla lamma wa tuhibbuna maal xubban jamma kalla ida dukkat al ardu dakkan dakkan kon ñu ngi lay déglu asalaamaaleykum imam maa ngi jégalu bu baax ci jël temps bi dama enregistré lu xaw a kii di tafsir bi ba si kanam ma mi laaw la laal après ñu daal di mu woo après mu dagg maa ngi siy tuub bu baax ci jël temps bi سين برام بويا سبحانه وتعالى ذنب بوم خيف أما الإنسان إذا مبتلى ربه وأكرم في نفخر الأهرام إذا مبتلى فقد عليه رزقه فيقول بي أهنم فسيت كلا بلا فكر من أجل لكن كلا دير المير من لونك فاجدون نكون جمي ترى رقم جمي أمكم دجمي دير لنك يا خميس ياك يعني كلا دير بمعنى لا أو كلا ليس الأمر كذلك بل الذي نكذال يندل لا تكرمون دونك ترى الأليسين مجرم يندل لنك خم مو يود لنك دخ مو يندل ab jire nak ko teral moy dilal di nek alalama fi min nek non te wala tahaduna kom niñ ka waxe fatḥ dhamm bil mabdi wala ne leen dal wala yahadduna mo wala yahadduna moy ñu fi leen du ngeen ñaax bu fekke na wala tahaduna moy du ngeen ñaaxante manam du ngeen ñaax ak du ngeen ñaaxante bokul xam nga du ngeen ñaax ak maanaam ak du leen ñaaxante yaani maanaam wala yaxsuduuna maanaam yéen du ngeen ñaaxe ala taam miskin fii ala taam yaani ala taam miskin ala itaam ba tey foofu am na xilaaf wa ida qulna masalan wala taxaaduuna mooy firi du ngeen ñaaxante ba yéen sax su ngeen gisee koo xam ne sax dafa bëgg a joxe ñam di saraxe sax da ngeen koy aaye kooku waaw koo mooy wala taxaaduuna mooy firi du ngeen ñaaxante اما ولا يحبون موي فيرو دين نياخ على طعام المسكين طعام بمعنى من نك اطعام نحسب بو طعام موي جيم نيام بي اطعام نك موي موي جخالي موي سيلا المسكين يندل وتاكلون ين داغي ليك التراث موي ني يعني تدي مرتف التركه دون ني ميراث بي داين جي ليك اكلا اك ليك آه، لمن اكلا اكلا لما داين جي ليك لمن اك ليك غو تراث مانام دوين سي فالي صح لي داغنا ولا حرامنا wala ngeen gis koo xam ne dafa war a doon ngeen lekk alalam yéen daal wa tuxibbuuna yéen da ngeen di bëgg almaala alal xubban ak ak bëgg jamman bëgg gu jégg daye yaani bëgg gu ëpp daal da ngeen da ngeen bëggee alal daal suñ nit mën dafa ëpp da ngeen bëgg alal ba mu tere leen ak jaamu yàlla mu teg ne kallaa kallaa gi nag dafa ñëw pour jajji radaa kallaa dafa ñëw ngir radaa jajji nee na isa dukkati ne mokkaleef na al ardu suuf si dakkan dakkaa mokku si gannaaw moo ko ndaxte dakkan dakkaa foofu dañ ne bokkul du tawkiid nekkul tawkiid lafzi defe naa badlu nada fi xatru nada fi naa Cheikh Moutar moo ko def di si nazmu xatru nada mu mu bu si bundu tawkiid mu doon wax ne walaysa min zal baabi dakkan dakka wa ma tala ala xilaafin yufka defe naa foofu lañ yemoon ci wàllu firi bi maa ngi jéggalu bu baax nag dama njëkkoon a enregistré moo tax ma gaawal firi bi nii jërëjëf كلا بلا تكرمون اليتيم وكلا نيكو في نولم افكتما لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون يقول ولا يحضون حمام سلام من مولك ولا تحضون بين قراءة بتحضون ريوة دو أخر يحضون تحضون تعال لكن نيول ما تصرفوا تتصرف ولا تحاضون نيول ما تتصرفوا ولا تحاضون تعالى ولا يحضن أما ولا تحاضون نحا لا ممكن يكون يتبقى تفاعل مي تحا دب تحا ضد تحا ضد dangeen ñaaxante naam wala taxaaduuna léegi nag ba mu nekkee taxaadada يعني ني اندي بنين مدارب دا يعني تفاعل يتفاعل يعني او تتفاعل بينك تتا ها ض د بنك تتا ها ض د نياري داري بينك ادغام منك تحاب بنك تتحاب ني دالدي حذف بين تالي ني دالدي حذف تاو ñooy daal di xasab kaagu mu des taxaab ñu daal di ko yéegal ci min al afaal al xamsa min al afaal al xamsa yaani ziyaadatu waaw wa nun buñ ko yéegalee ci afaalu xamsa mu daal di mu daal di nekk taxaabuuna naam taxaabuuna nun laa si toll si wàllu jërëjëf Cheikh Tidiane Dramé وبهذا نكون قد انتهينا من الدورة الأولى

bu ko defee ñett insha allah ñu ñëwaat ci def tafsir eh, juz i tabarak ci la ñuy def insha allah ci ñent ñi ñu tànn juz i tabarak la ñuy dem ak ñoom ci tafsir bi kon nag cheikh eh, jaan ñu ngi lay gërëm bu baax macha allah di gërëm képp koo xam ne rek bokkoon nga ci mutasab mu musabaqa bi di leen encourager bu baax a baax yéen ñëpp ay jàmbar ngeen yéen ñëpp ay برامي خم خم جن برامي خم خم جن أي علماء جن ما شاء الله من خوم وانسان دخ جروب جن ينالو جروب وقجال خموني جامبار يمن نموت أصحاب قولي ما شاء الله كنت أنا نتي وباخ باخ جن جرم دنسان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على درجات الشيخ إمام الشيخ محمد البصيري ibnu Cheikh Ahmed Abdass Sall ñu ngi lay bu baax di la ziyaare yow macha allah kenn di yow wax dëgg fi yàlla say coono si majmaa bi say jàngale lépp rek ngir sa bëgg xam-xam xam naa ne ñun ñoo la war a jaajëfal ñëpp la amee yitteel ngir sa bëgg xam-xam ndaxte groupe bi mel ni waxul jaal xàqu buñ fa nekkee euh, ak ñu mel ni ki ñeen rek dañuy am sawar ak kontaan pour mën a toog si groupe ba di taataan seen xam-xam kon macha allah kon yow tamit ñu ngi lay ñu ñu ngi bég si yow lool sax di la ñaanal góor yàlla yàlla yàggal la fi te may la fan nga ànd ak wér farma yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nan la ñuy ziyaare kilifa gi Cheikh Bakay Diallo Sas Jibril ak mboolem ñu bokkoon ci musaabaxa bi incha allahu taala ñu ngi nii ñëpp kon di ziyaar ñëpp.